ñoom dañ fee ñëwoon tey xam naa nag euh, daje bi ñoom ñoo ko sàkk woon bi ma bàyyi naam Fall moom mbokk la ci ñun doomi soxna benn Sëñ Fall la waaye bàyyam tamit ci Baye Fall gi la bokk. Euh, ne ma dañoo bëgg a yow pour waxtaan ak yow ndax liñ xam daal mooy lu bëri ci mbooloo mi ñëw yéen lañ àndal waaye lii di xew xaw na leen seen daal suñ sañoon nga def benn déclaration xamal nit ñi fi ngeen nekk daal bu ko defee ñoom dañ lay gën a wutalu lay ma ne ko loolu moom amuñ ci benn problème. ñun li ñuy bañ rek mooy ngeen giñ ñu li fi xew lépp ne ñun la waaw baatu jégalu moom duñ ko def ndax tooñuñ kenn bay jégalu waaye nag amaa suñ jëmi position ni ñu ko yàgg di defee mën nañ koo defee waat noonu waaw boo leen ñëwee ñu toog ñu waxtaan mën naa xamal ñëpp ndigal li Ousmane Sonko yàgg joxe ci Touba yàgg koo wax waaw loolu daal moom moo fa xewoon biñ ñëwee it ànd nañoo ak suñu Assane Fall doomi suñu Modou Moussa Fall ak suñu Assane Fall ñoom it dëgg-dëgg ay mili du ma ne ay militant passif lañ mais jàppaleen daal fee ñu ñu fa contre fa waaw li ngeen gis yëpp am na ay gars yu ne ci ginnaaw di manipuler rek waaw mais déclaration bi it leer na dama fàttali rek xamal ne kuy sàmm war may dëkk bi it ñun nga ci jàppale te ñun foofu lañ mas a nekk waaw te ñuy wu ci dëkk bi képp koo leen ci jàpp du bokk Pastef ñun suñu manifestation yëpp Mbàkke lañ koy defee waaw loolu daal la ne woon naa ne ko defal compte rendu bu pour ngeen xamee ko noonu waaw biñ ñëwee it fekk <clears throat> ñu doon waaj ñëw foofu ci kii bi avant ñu def proposition bi fekk na ma fa ak biram ak yooyu waaw fekk waxtaan wi yëpp xam naa moom dina duggal leen dafa leeral